mbokk yi suivre AFT TV dal leen ak jàmm ci famille sénégalaise nag li nga xam ne mooy épisode 106 bi mu mel ba tey soxna Bator li nga xam ne mooy ngoone ko mooy jéem daal fexe yàq xew Lamine fexe koo jaxase fexe daal ba maam lépp loo xam ne Lamine maam mi mu bàyyi ko nag maanaam ba nga xam ne nag seen diggante sax ci sëy seen diggante sax sëy dootu fa am nag maam tey tas li nga xam daal mooy sëy ngoone mooy li nga xam ne moom lañ bëgg ndax ki nga xam ne moom mooy mère Sooda nag di yaay ki nga xam ne moom mooy Lamine moom daal boo dee xool taxam a taxaw daal mooy ànd ak bëtóor yàq sëy ngooñ ba nga xale bu góor bi nga xam ne yowaloon na ko ci kër gi nag di ko wax nag ne ko maanaam ba Lamine gis ko a yàq ne ko boo fi ñëw nag moom yàgg na fi di ñëw du tey doo nga la fi njëkk ñëw moom mère Sooda nag mujjee naa dem ba xaw a mel la xaw a découragé nag di woo bëtóor di ko wax ne nag nañ bàyyi waaye ku ne xam na ne soxna ba tóor moom bu ngeen koy day dagg maanaam nee na ko nag man boo bàyyee sax du ma bàyyi nag xam ne moom mooy ngóone nag xelam yàqu na waaye mi ngi maam gisagul daal benn preuve wala loo xam ne daal mën naa tax mu attaque ki xam ne moom mooy wala mu dal ci wala mu wax ko lenn loo xam ne wax nii daal ngóone wanagu ko te gisagu ko ci moom lépp li muy mën a dégg lépp ay wax la yoo xam ne daal ñu jóge ci ñeneen la ak ay wax yoo xam ne daal waxi pour yàq xel xam ne moom mooy soxna Bator nag sakar mi koy tajaat ci àndam naan ko yow nag sa sëy dafa a yàqaale sëy jàmbur bëgg a tas suñ kër gi doog tamit mi waxtaan ak àll di ko wax ne nag maanaam ki nga xam ne moom mooy ngóone soxna Bator la soxna tas sëyam ba pare bëgg a tasaale sëyu jàmbur àll nag nee na fii kenn du fi tas mi sëyam tas moom mooy dem wàcc ñi fi waaye nag nga xam ne nag ki nga xam ne mooy Mariatu gént na te du koy nax nag lépp loo xam ne daf ko daan gént daal dëgg la waaye li nga xam ne gis na ko te yaakaar ko daal mooy jàpp na ne moom sëyu dina tas moom daal lii moom li mu gis